est-ce mu defaruloon ci jamono jooju mun na ko defar tey loolu mënul na de te moom nee na il est le candidat de la continuité mooy li ñu doon ba tey te moo tax Koumpentoum mel lii bu mel dëkk bu toll ni lii mooy principal axe bi benn tali bi rek lañ fi mu doone te éclairage sax amul fii ci Koumpentoum est jaari la moom mu ne loolu la bëgg a continuer tey candidat de la contusion moi, li li li li Sénégal moom loolu la bëgg a wéyale ci tardeel Sénégal est-ce que di ngeen ko nangu kon pour mu jóge fi il faut ñu faire cette fois-ci dem jëli carte électeur yi dem vote ji sécuriser vote bi toog ba ngoon yéen surtout jeunes yi surveiller les bureaux de vote bu ñu toogee ba heure bi ñu ne Bassirou Diomaye Faye mooy cinquième président du Sénégal ngeen xam ne bu ngeen defee loolu fal ngeen Bassirou Diomaye Faye waaye fal ngeen it Ousmane Sonko ngeen wóoruñu tënk ñu réew mi may lañu juróom at rek juróomi at lan mooy soppiku ci réew mi ndax ñun du ñun duñu sàcc alal réew mi kenn mënuñoo corrompre soxlawuñu dërëm bu ñu moomul du yóbbu suñu kër lu leewul te duñu jël intérêt réew mi di ko jaay tubaab yi jeunesse on a une chance unique pour changer le pays. C'est vous le changement. Vous les porte le changement. Comme nous avons dit, nous avons fait cette campagne, nous avons fait ci kër yi ak ak ba comprendre lan mooy enjeu yi occasion bi buñ ko raté 2024 ko raté wallahi dama ko waat bu ñu ratee 2024 bii dinañ ko rëccu de dina métti trop yéen a ngi fàttaliku su may daanalee yéen a ngi fàttaliku 2019 bu ñu génnee ci élection présidentielle bi taxaw naa assemblée nationale wax cuune bi nga xam ne gars yi cuune nañ ko wax sàcc bi ñuy sàcc alal réew mi waaye li ma daaneeloon mooy lan mooy juróomi at yi di ñëw. Sénégal yi dinañ souffrir est-ce que juróomi at yi passé souffrir leen yéen waa Koungheul bi est-ce que réew mi méttiwul ñu doon jar cent léegi ñu ngi jar mille ñëpp a sonn kon su ma leen nee deux mille vingt quatre bii suñu rëccee dinañ ko rëcc ngeen war maa gëm. kon victoire au premier tour. victoire au premier tour. victoire au premier tour.